dooleel ki nga xamante ni moo di euh, Lac de Guiers 2 ginnaaw bi ñu leen nuyoo ma bàyyi la nga présenté ak internet yi. waa soxna si maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar. ginnaaw bi ma leen nuyoo ma bàyyi la nga présenté woo ak mbokk internet yi. waaw ndeysaan maa ngi nuyu waa Sans Limites yëpp di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay euh, di nuyu ñi ñu seetaan ñëpp tey nag euh, man Doudou B Promedia di dund làmb di ànd ak askan wi yëpp di dund actualité lépp tey nag ñi ngi fi nga xamante ni mooy palais de justice bu Pikine Géejawaay bi ci atte bi nga xamante ne doon nañ ko atte Lac deger gis nañ ko sànq yóbbu nañ ko waaye lu ñu mën a wax rek mooy jullit la jullit ndogal nag yàlla sunu borom ku mu bëgg rek la koy teg dogal bi dal na ko ci kawam dañ koy ñaanal yàlla yàlla oyofal yeen wi diis na nag metti na mais nag mooy li ma wax sànq sunu borom ki mu bëgg rek lay teg yenn yi te lii bindoon na ko ci li nga xamante ni mooy dundam munta ñàkk. la dëgër tey am na ñoo xam ne tey si problème bi lañ koy gën di jàpp am na ñoo xam ne tey si problème bi lañ koy bàyyee te loolu mooy àdduna ku xamul say nit ci problème rek ngay xamee say nit ci problème rek ngay xamee ñi la jege dëgg dëgg dëgg gis nañ fi nag waa Géejawaay ñëpp gis nañ fi dirigeant yu mag yi ñoom liiru jaan ñoom it def nañ seen wareef waxtaan nañu ak ñi nga xamante ne mooy waajuru la de gis nañ ko fi léegi moom it émotion yi metti na metti na fi mettit yem biñ ko génnee sànq dugal ko si oto bi di ko yóbbu xool yëpp tooy na ndax kuy jullit rek yéen a woon sa moromu jullit yenn yi di ko dal bu dee jullit dëgg nga nag laa wax bu dee jullit xàkkan nga di ko ñaanal comme li ñuy wax rek di ko ñaanal encore une fois di ko ñaanal waaye nag na yeneen mbër yi jàng si yi nañu moytu lu bari gis nga lii di jigéen ak alal yàq na réew mi <laughs> jigéen ak alal yàq na réew mi la cas de Gris Bordeaux gis nañ ko fi bërki démb yàggul tey la de guerre suba ban mbër la xaw ma yàlla bu ma mat mais nañu moytu nañ jël seen matuwaay nañu jël seen matuwaay alal bi ñuy topp day jeex te ñoom seen tur yegg na foo xamante ne pour ñu taxal leen day metti te pourtant cas bi am na ñu ko bokkal la ñu wax man xaw ma fekkewuma fekkeew mais ci li ñu wax nee nañ am na ñu ko bokkal te ñenn ñi daw nañu ñenn ñi ñi ngi Europe toog te tey turam moo xot moo turam moo yoole kon boog turam moo indi fii muy yegg si ndax ñeneen ñi xamuñu leen xam boo xam xamante ni war nañ leen mën a dénoncer xamuñu seen tur siwuñu noonu moom nag moo si gënoon siw moo tax tey mu yegg si fii di ko ñaanal comme li ma wax rek waaye na mbër yi moytu ñenn ñi am tur yi nanu moytu yenn yi war nañ leen si néew di leen si dégg si genre yu mel nii di ko ñaanal encore une fois di ñaanal ñi nga xamante ne ñooy seetaan sans limite yëpp sama mboq bi alburaax dafa baax rek maa gën a néew ci waxkat yi xamuñu ma sax waaye moom fu ma gis dafa may xëcc dama dama laa soxla dama laa sopp ndax damay gis ngay topp làmb waa làmb nag sunu culture la dañ ko moomal sunu bopp keroog gis nga li nga xamante ne chef de l'État am na fa mbuur ministre bi ñëw na ndax làmb dafa daje jeunesse daje culture li mu daje dafa bari moo tax di ñaanal ñëpp jàmm Lac nag di ko ñaanal yàlla na borom bi teggil ko lii mu gaaw di waxaat encore une fois ñi nga xamante ne ñooy borom turi yi ñoo nekk ci làmb ji lii nañ si jàng nañ jël seen biig ak seen feuille bind ni diw amoon na fi problème bi su ma defee lii naa moytu loolu lañ loolu rek la ñu amoon ci kàddu yi nga xamante ne mënoon nañ ko si sànni jërëjëf. merci beaucoup mu nekkoon Mbaye Diop comme ni ngeen ko déggee nekk amateur bu baax a baax ci euh, làmb ji nga xamante ni moom lay euh, yëngu euh, kon moom nag itam ñëwoon na fi nga xamante ni moo di ci tribunal bu Géejawaay ngir rek dooleel ki nga xam ni moo di Lac de Guiers 2 nekk ci ba tey ci wàll wi dégg ngeen kàddu yi. yi nga xamante ni moom la yëkkati daal di ko seddeel Lac de Guiers 2 mi nga xam ne nekk na ci. jafe-jafe jamono ji ginnaaw bañ ko daal di euh, tegee mandat de dépôt loolee nag euh, mu ne guñ ci sori comme ni ma ko waxee ndax te mbirum yoon la dañuy bàyyi yoon daal di wéyal waaye yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy teewlu ba tey yéen it mën ngeen di joxe seen euh, réaction en direct au 76 613 21 79 76 613 21 79 ngeen daal di participer ndax ci euh, direct bi itam ngeen daal di euh, bokk naka noonu ma bàyyi Alburax mu daal di euh, wëyal ba tey dikkaat un tout petit peu ci mbir mi nga xamante ni tey moo ñu fi tax a teew. voilà jërëjëf maam Fatou ñu ngi gërëm bu baax itam ñi nga xam ne ñoo fi ñëwoon doon participer doon joxe. seen euh, contribution par rapport ak euh, li nga xam ne moom moo xew dégg nañ kàddu yi nga xam ne du du euh, bu Bipro daal dina ko yëkkati dégg nañ itam kàddu yi nga xam ne moom la Fadel bu Dakar Buzz daal di yëkkati ak itam ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fi doon joxe ku ci mel ni Mbaye Diop moom itam daal di joxe xalaatam ci li nga xam ne moom mooy mbir mi dañu leen di di toppandi. li nga xam ne moom mooy information bi ndax sax dégg nañu tam euh, ñenn ci famille bi nga xam ne ñoo nekk ñoo bokk ko euh, Lac de Guiers ci famille Lac de Guiers plutôt euh, doon yëkkati ay kàddu bay sax tuur ay xéewal tellement que ñoo ngi door a gis seen xarit bile ñu daal di koy yóbbu ah metti na lool gis nga ñëpp a ngi ñëw fii nga xam ne moom mooy ci bërëb bi ngir ñëw massawu ki nga xam ne moom mooy Lac de Guiers niñ koy faral di waxee à chaque fois Euh, mbir moom euh, bu waree am dafay am ala suñu beneen naataango bu euh, Sénégal seet kilifa gi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar mbaa yaa ngi ci jàmm alo mbir mi ñoo ko yëgandoor Lac de mujj nañ ko yóbbu ban jàngat ngay def ci linimel ni noo gisee maanaam mbir mi ni mu demee ci Lac de Guiers. ah affaire yi c'est très que mbër bu mel ni Lac de Guiers jii. soxla woon na soutien yeen bëri quoi mais gis naa ñu démb waa waaye ñoo fi newoon tey ama seen euh, à part ama seen gisaatuñ fi bër ki nga xamante ne mooy Gris Bordeaux nekk euh, jiite les lutteurs en activité waroon ñëw tey ji xam nga soutenir ko parce que soxla na soutien comme Gris 2 ba mu amee problème ni mu mbëri yëpp génnee soutenir la soutenir ko euh, ki nga xamante ne moo di la de Guiers ba mu nekkee ci ay jafe lo nekk si ay loxo yoon gars yi mën nañ ko ñëw soutenir ko parce que loolu la soxla woon actuellement nag euh, gis nañ ki nga xam ne ni mooy le patron des sports mu nekk Bakary Cissé am na benn contribution bu mu def mu nekk à la hauteur de 10 millions euh, mu jàppaleeku ko te mooy waroon bëri nag dañ doon wax naan Sadio Mané moo ko joxe. non non no non du Sadio Mané du Sadio Mané euh, Bakary Cissé Bakary Cissé mu nga xam ne moom moo yor moom moo yor des sports nekk nekk le conseiller de Sadio Mané moom moo joxe 10 millions yi ki nga xamante ni mooy Lac de Guiers parce que Bakary Cissé nijaay la papa bu ndaw la si ki nga xamante ni mooy mooy mooy mooy euh, mooy Lac de mooy taxawaayu mbër dëgg-dëgg ba yii bañ koo mën a dal. bon dëggal jubal leeral rek ba ñu nekk si ay tuuxi duna parce que.